jamonoom nag bare na bare na lu ñu découvrir ci wàllu plante yi surtout bare na tee yu ñuy naan léegi te ci jamono boobu lañ ko découvriroon moom ku soppoon plante yi la daf ko daan fajoo daf ko daan fajoo ndax ñu ko jëlee ci Firawna na li ëppoon ci lekkam mooy mbuum mbuum mais seen mbuum dafa woyof dañ ko def supp di ko naan dafa wéral seen yaram surtout espèce su caxat la mbuumu caxat dafa wér ci nit waaw ñoom ñoom àpp ñu ca ne am nañu alal dañuy lekk lu neex dañu àpp ni rekk nit war na wér kon na lekk lu ko wéral moo tax suppum caxat lañu daan def tudde ko muluxiya moom la ñoo jox seen gan boo naa ne sa yaram yëpp dafa tàng wallaay waaye gis nga ñu nga commencé di ko yàq na ñu nga commencé di ko defar ba noppi di ci boole ceeb lu ñu def rek boole ci ceeb kenn xamul loolu lan la waaye ñoom no loolu moo leen daan dundal tabarkalla waaye fekk na yàlla moo xamoon ni yonentam boobu budget ba koy dundal ak ba koy formé kenn rek comme ci kaw suuf muy Firawna mu yabal ko fa pour ñu dundal ko ba mu duuf mu wàññee ko xeexal ko Firawna borom bay def loolu waaw moom du tàyyi xeex mukk